Salut les amis de Sport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de vous et des likes, merci de vous et des abonnés, merci également du bail, des commentaires. Un plaisir renouvelé à chaque fois des partages et information, inbox Inbox Sénégal et Trifo le Quand 14 régions du Sénégal. Rukhrukhali, Gorgorad, Ningle Lidia Jeffel, Ninek également, Télé l'hôpital et Tchèque, Tête de février, Amnas, Nimborom Fogesen Bok, Niver Gam. Ninek Sikasso, Ingen Hamne aussi, erreur judiciaire, Guinée, Nidé Foul Molen Foyoub, Sinborom Guéneren Feu, Deloa dans Sen Yabot, Nidé Loa Dona, Sinborom Khalen Adjan Fidao, c'était Yéhénou. en avançant ensemble dans la magie des Sport TV l'actualité en continu gars actualité ñu fa seen waxtaanee que donc Nicolas Jackson mi soog a signé officiellement du côté de Chelsea une leen si détail yu exclusif wax également ki donc ki di Alpha Jonko mi jógee du côté de FC Barcelone Szoboszlai qui arrive du côté de Liverpool ak aussi la bonne nouvelle pour le FC Barcelone loolu ñu fa seen ci indi ay leeral mais laata bobu Pape Ousmane Sakho poste mi ngi nii de poos ngi le petit boss gis comme ko moom nii la féetee wàllum alaaji ak waa nak nag li ah, lii la féetee wàllum alaaji li nga xamné nak nag moy donc euh, tabaskim ñuy siy profité wat profité wat di baaluwaat ñëpp ak ah.

pour amit tamit am nat ku nek nat sa morom mais aussi am ci ci jang par rapport li xam nak mooy jongante ñew bu fat nak également octobre lay def li nga xam tirage de pouli euh, donc gars le 30 avril 2002 le ñi di wa Brésil jëloon li di coupe du monde ba fof non. donc <laughs> donc ca ca ca ca ca Asie lañ ko jëlé Corée donc ma ah, donc ñi di euh, génération bu Ronaldinho ak aussi nga xam donc Ronaldo el phénomène. Gareth Bale nag gars yi moom li wax reyna Gareth Bale nee Cristiano Ronaldo waju am bax la mais <laughs> buñ leen doon buñ fekkone ne Real mën a 5-0 wala dugal cinq buts moom dugalul benn bu duggee ci vestiaire da ngay dafa mer nee na loolu comprendre woon à part daal nit ku baax la woon loolu daal la Gareth Bale daal di wax. bonne nouvelle pour le FC Barcelone xam ngeen affaire Negreira bi moy li ñaan naan dañ doon luubal dañ doon ki guerre ni xam mooy ay arbitre légui nak wa commission bu UEFA sétal nañ leen pour l'instant. donc ce qui veut dire que Barça dina jouer Ligue des Champions année prochaine parce que bu fekkone ne dañ leen daan duñ ko mëna euh, jouer donc ça c'est une bonne nouvelle ki dé également Arda Güler wax naa leen ko wa Barça nag tegaat nañ benen jéego dem nañ gis ba président bi nga xam mooy président Besiktas wax ak mom né kon dañu bëgg jënd joueur bi waaye dañ ko fi bayyi benn année encore ba 2024 muy soga ñew légui nak président bi waxtaan ak famille ñi di Arda Güler léegi nag Arda Güler moom moo ci des dina tok né na xol proposition ak bu demee Barça ban rôle lañ ko fay jox ba laata muy signé kii nag Lucas Hernandez gars yi nag lépp mën na moom nag. visite médicale mak lepp def du côté du FC Barcelone semaine bi di du côté du Paris Saint-Germain plutôt semaine bi Paris Saint-Germain war nous euh, présenter donc euh, moment sax du côté donc du Bayern Munich pendant ce temps aussi Paris Saint-Germain a budget wu 200 millions lañu am pour recruter Ben attaquant ak ben ailier donc là loolu lañ nekk fi di wër ben avant-centre de haute qualité ak ben attaquant euh, ailier lañu bëgg dal fimné pour renforcer l'équipe équipe pendant ce temps Galtier ci moom gars yi boo gannaaw ba nga xamné dañ ko en garde à vue le 15 décembre inshallah on rabi lañ koy daal di lay taxaw ci kanamu yoon kanamu àttekat gi jëm si nga xam ne dañoo jàpp ne wàllum ah, kii di mu tëdd wàllum ah, mi kii. djeglu lepp wàllum racisme ak lañ koy daldi ak discrimination la lañ koy topé ñi di Atlético Madrid ñoom officialiser nañ ki nga xam mooy Kondogbia dem na du côté de Marseille ba ñuy defal ko gracias Atlético merci donc Atlético mom loolu la fësal mom ci boppam Geoffrey Kondogbia pour daldi sargal atletico mi ko joxone confiance fi nak dem na il sera joueur marseillais donc déwén dal mom mayo Marseille lay daal sol pendant ça également ki nga xam moy mooy chek c'est officiel signé na contrat am ni ma la ko waxoon du côté donc de Milan AC le joueur donc de Chelsea bi nga xam euh, na tamit mom amna message bo daw yaram Chelsea le joueur américain mom mi ngi gën aussi ñi di wa Milan aussi objectif am mooy daal di dem du côté donc du Milan fi mu loolu Milan daal di bëgg donc qui di Pulisic donc l'attaquant euh, bi nga xam moy donc euh, euh, de l'Amérique des États-Unis mom daal jógee Chelsea parce que le temps de jeu ki nga xam ne moy donc qui di Osimhen waxoon naa leen ko mi ngi nii moom daal ñi nga xam moy donc Salvatore Bagni mom moko ko wax ah, di journaliste bi nekk Napoli néna na daal fi mu ne nii ñaari jours équipe daal lay gis muy ñi di Manchester United wala Real Madrid sinon nag yeneen équipe yop kenn intéressé wu ko ci ki nak également Marca mo jox meilleur joueur joueur de la saison ci toutes les tous les grands championnats kii di Erling Bro Haaland lañ ko jox donc ci 100 marquages yi donc la bokk ala nek ci kaw a kaw donc ci 100 meilleurs joueurs yi mais mom mo nek tamit au top ci di Erling Bro Haaland kii nak di Weghorst xam ngeen ko Weghorst également. Nico Alone du côté de Manchester euh, United c'est confirmé Manchester United du côté de même que également kii di Sabitzer Sabitzer également Momit it euh, Manchester United du côté day Momit du côté du Bayern de Munich le milieu de terrain donc euh, Sabitzer donc malheureusement donc day du côté de la Bavière est-ce que dina fa toog loolu nag wax ji gars yi nag mais ñoom bu ñu demee lii mooy milieu de terrain bu Manchester United déwoon incha allah rabi donc Casemiro Mount Fernandes ci milieu de terrain Anthony Rashford Sancho ci kaw le temps qu'on change vous wu attaquant Shaw Varane. Martinez Dalot ak Dexia yaa ñu nar nekk nga xamalo di défense bi Dominique Soboslay nag gay c'est officiel presque hein, c'est presque officiel day dem du côté donc de Liverpool accord amna Liverpool envoyé na bataxal ñi nga xam ne donc Leipzig na len option bi nga option d'achat bu 70 millions yi ñoom dañ dañ koy lever tay jii nii donc devrait être annoncé pendant ce temps Alpha Nkunku à Barça annoncé nañ ne day jugee du côté du FC Barcelone xam nga moom dañ ko abale woon nag du côté du Barça avec option d'achat mais malheureusement nag wa Barça jëluñu option d'achat donc Alpha Nkunku qui va donc euh, quitter le FC Barcelone comme ni ñu ko euh, donc également ki nga xam ne mooy donc kii di euh, abib donc le joueur de Strasbourg fi mu ne nag d'accord na ak waa Lens mais daal waa Strasbourg ñoo ko bëggagul bàyyi mu dem loolu daal jamono ji moo nekk indi jaaxa parce que moom Lens des jeux Ligue des Champions et que comme que dañ ne kii di. Euh, donc Fofana wu day dem donc peut-être que mom moy nek un homme fort qui di Nicolas Jackson contrat ans la mais signé lan mais officiellement non Chelsea annoncé nako signé na contrat bi khatim nako mais mom nak ak euh, ñaari semaine lay dem États-Unis and fa fa Chelsea nga pré-saison jamono ji du côté de di vacances dañ jox comme on tous les détails les six meilleurs joueurs africains donc au niveau de la Liga qui dit Mbacke Fall bokk na ci la Pépin Mbacke Fall du côté des États-Unis ñu allons ko Villarreal avec option d'achat bi Villarreal mënoon ko jënd mais après mom mo décidé dem fa nga xam mooy du côté des États-Unis lan motax peut-être dafa am yeneen proposition on en saura plus gars c'était les informations qu'on voulait vous donner toujours un plaisir de vous servir woy leen like woy leen di abonné bu leen aussi bëss ci lien bi dem abonné ci chaîne Baba Show bi am version français bi jàpp ci combat bi ja ngeen jëf au plaisir